waaw premier mai bii de dafa xaw a comme li mu taseel moo tax d'abord koor gi mu ngi ci et ensuite euh, feebar bi ñu ciy sant yàlla nag bu baax di wax ne tey jii ñu ngi fii toog waaye li ñu doon def def nañ ko ndax li ñuy wax manifeste mooy benn kayit la boo xam ne dañ koy jébbal liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool pour wax leen ñun suñu gis-gis ci ni ñuy doxale kër gi ak ñu suñu gis-gis ci ñi nga xam ne te ni ay syndicat la yoo xam ne ay entreprise yoo xam ne seeni liggéeykat dañu affilié ci suñu syndicat muy waa ASER muy waa Kunun Power muy waa euh, Contour Global muy waa Simelec ak muy waa Comasel ñooñ ñëpp ñuy rafetlu ni ñuy doxaleek ñoom seeni revendication defar nañ ko ci benn kayit jébbal ko ñu ñu ko war a jébbal donc loolu moo ëpp solo maintenant nag feebar bi fi mu toll dañuy wax ne kenn ku ci nekk boo gisee loo xam ne dafa jéggi dayo da ngay bàyyi li nga xam ne moom nga nekkoon pour dem ci loolu tey jii ñun ñëpp sénégalais yi suñu effort ak suñu concentration yëpp dañ ko war a def pour daan pour xeex feebar bi te ci loolu la ñu nekk donc ci biir kayit googu liñ ci njëkk a wax mooy ñu ngi ñaan sénégalais yi di ñaan liggéeykat yëpp nañu respecté gestes barrières yi di sol masque di yore gel di raxasu bu baax te éviter di d si kër yi di bu fekkee ne loo xam ne mënul ñàkk la même liggéey bi sax dañ ko réduire au strict minimum donc loolu moom moom lañu def si premier mais bi di wax ne nag tey ji Sénégal kenn xalaatul di def ay revendications d'autant plus que revendication yi nga xam ne joxoon nañ ko gouvernement bi daaw lu ci bëri saafaraagul mbirum santé mu ngi fi mbirum jàngalekat yi mu ngi fi mbirum euh, secteur yu bëri am na ay accords yoo xam ne gouvernement bi amoon na ko te ba léegi respecté gu ko donc comme amaat nañ beneen at ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu jéem a dox ci loolu pour que revendication yooyu ñu solde ko balaa ñu ñëw di tegaat leneen mais tey jii xel nanguwul ngor aussi nanguwul nit ñi nekk ci diggu feebar wi ñuy teg ay revendication tout au contraire ñun li ñu war a def mooy xool naka la ñuy jàppale gouvernement bi ba ñu xeex feebar bi te loolu ñun Sutelec def nañ ci suñu wàll ñun Senelec def nañ ci suñu wàll ndax liggéeykatu Senelec yi néew na koy gis da gis rek ñu ne entreprise nangam joxe na mais ñun liggéeykat yi seen bopp ñoo ne pendant ñeenti weer weer wu nekk dagg leen sama salaire nangam syndicat yi joxe amical yi joxe daayira yi joxe ñëpp joxe loolu bi ñu ko dajalee mot na 200 millions ñu joxe ko ci turu liggéeykatu Senelec gi donc loolu aussi day wane ne ñun ay patriotes lañu parce que bu revendication jotee ñu revendiquer mais tey jii bu jàppale réew mi jotee ñu jàppale ko donc ñun xalaatuñu sax ne dañuy laaj mais dañu nekk ci posture joxe leneen li aussi mooy si liggéey bi ñuy def. ñu ngi fexe ba kër yi comme nit ñi lu bëri ñu ngi toog ci kër yi ñu permettre leen courant de coupé ba ñu mëna a seetaan télé normalement am internet am seen ay ventilateur ak seen ay climatiseur normalement loolu aussi vraiment ñu ngi ciy jox suñu laaj. waaw liggéey euh, mesures yooyu dañ koy rafetlu bu baax wax ne loolu lu social la ndaxte nga ne tey jii euh, usines yi nga xam ne dañoo tëj ñu ngi leen di dimbale pour ñu mën a fay seeni salaire loolu moom lañ ko rafetlu la nga ne transport bi léegi da nga ku waroon a chargé fukk juróom ngay chargé ñu dimbale la ci carburant bi loolu aussi lu salutaire mesure yëpp ceeb bi ñuy joxe courant bi ñuy fayal factures yi ñenn ñi ak euh, woyofal bi ñu may loolu lépp ñu ngi koy rafetlu xëy na lenn rek moo ci xaw a am lu gàllankoor te comme li ñuy wax euh, amul dara lu parfe mooy courant bi ñi nga xam ne dañu am facture fayaluñ ñëpp bu fekkee ne da nga dépassé 250 kilowattheure duñ la fayal te loolu tamit jàpp nañ ne du mesure bu juste ñi nga xam ne seen facture dafa yées cinquante kilowattheures ñoon lañ may te itam wax naa ko fa ma ko war a wax te dama ne euh, ministre bi nga xam ne dafa am këram sali du fa dem lu dul une fois par par par mois moom bu demee ànd ak njabootam def fa benn week-end du cent 250 kilowattheures nga fayal ministre boobu courant. alors que am na sénégalais boo xam ne am na frigoom ci këram di ci jaay glace lu muy dundale jabootam am na 251 kilowattheure nga ne doo ko fayal loolu dañ jàpp ne lu injuste la. non non non défalqué wuñ ko ci ko ko ëppale 250 kilowattheure rek duñ la fayal dara loolu aussi jàpp nañ ne du mesure bu juste. ah wax nañ leen ko mais xam nga ñoom ñu ñun li ñu mën rek mooy ñaax parce que ñun ci biir kër gi lañ nekk bu ñu gisee loo xam ne du lu yoon dañ koy wax wax nañ ko nag fañ ko war a waxee mais xëy na dégluwuñ ñu. mais loolu association des consommateurs ak population yi ñooy ko war a jóg kaas ko mais vraiment mesure bi moom dans son esprit vraiment rafet na baax na mais c'est dans son application lañ gis ne amul équité te loolu tamit vraiment rafetlu wuñ ko en tant que syndicat parce que ñun ay syndicalistes lañ mais ay consommateurs lañu loolu aussi war nañ ko waxal population yi. nguur gi li mu def rafet na donc sénégal yi aussi ñoom tam ñoo war a béy seen làcc ci mbir mi. maanaam buñ ñu nee nañ porter masque na ñëpp porté masque c'est vrai que masque c'est gênant parce que tàmmuñu ko mais comme dafay faa dafay far ba euh, maladie bi dañ ci war a taxaw bu ñu nee nañuy raxasu nañuy def gel vraiment loolu dañ ci war a taxaw bu ñu nee aussi ci biir oto yi nañuy dugal ñaari nit ak chauffeur bi loolu aussi dañ ko war a respecté gis naa ne nag boo xoolee ñu bëri majoritairement nit ñi ñu ngi tekk seen masque nit ñu ngi raxasu nit ñi ñu ngi jéem a respecté vraiment loolu aussi lu ma rafetlu la maintenant nag euh, au fur et à mesure xëy nañ nañ dem lenn lañ ciy ñaawlu mooy ñi ñi nga xam ne ñu ngi euh, braver euh, mesures yi di voyager di jële feebar bi dëkk di ko yóbbu beneen dëkk loolu vraiment je pense que nguur gi war na jël ay mesures yu très fortes yu fort pour que vraiment ñooñ ñu mën leen dissuader kenn ku ci nekk mu toog xëy na toog sax mënul ñàkk mais balaa ngay dem na fekk mu nekk cas de force majeure et que ñu testé la ba nga nekk négatif nga doog a dem mais mu leer ne am nga ba jàngoro bi ba pare ngay yéeg si ay Jakarta di franchir ay frontières di dem feneen loolu moom vraiment rafetluwuñ ko bon ni muy jóge en dents si dañuy wax ne feebar bi ku mu tiitalul dara du la tiital dégg naa benn ustaas buy firi mu ne sénégalais yi niñ feebar yi ragale feebar bi ragalewuñ ko yàlla Euh, mais boo xoolee li am États-Unis xool li am Chine li am Espagne li am Italie ak ay France nga xam ne ay dëkk yu am doole lañ nam fay def ak la mu fay rey dafa bëri donc ñun su fekkee ñu ngi nekk ci ay 89 cas ay 60 cas ay 50 cas am ay une dizaine de morts dañu war a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax doole ci luñ ko santoon. ta loolu nag taxawaayu médecin yi la ñoom ñi nga xamante ni vraiment yendaluñu fanaana lu ñu nekk ci kaw maladie di leen faj. di wax aussi lenn li nga xam ne moom la nit ñi war a doxale ba feebar bi du am donc loolu dañu leen si jaajëfal wax leen gàcce ngaalaam ñoom médecin yi di wax aussi les forces de l'ordre aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm mooy waa police waa sapeur pompier waa armée ak waa waa paramédical ak waa service d'hygiène ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant ci liggéey bu rafet bi ñuy def message bi may lancer rek mooy demande nit ñi nañu continuer di respecter les gestes barrières ñu éviter nuyonte bi di takk masque di raxasu di yore gel fu ñu nekk te éviter regroupement yi te éviter aussi dem demlante bi ak dikkalante bi kenn ku ci nekk nga toog sa kër bu ko defee yàlla dinañu dimbale vraiment que euh, mesures yi nga xam ne nguur gi jël na ko ak euh, les autorités ñu fexe bu ko respecté yàlla mën nañu dimbale mbas mi balaa muy yàgg mu jeex fi tàkk incha allah. maa ngi souhaiter euh, de une très bone fait du travail à tout le monde. di wax ne rek euh, ñun ñu ngi xalaat liggéeykat yi di xalaat retraité yi ak veuve yi ak euh, ak euh, ñi nga xam ne seen papa dafa gaañu maanaam mooy orphelin yi am na lu ñu ci wax ak DG tey si suba xam naa bu sottee dinañ ko yeggee ñuy wax ne daal liggéeykat yëpp ñu ngi leen di souhaiter une très bonne fête du travail